jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawal info TV mbokki ñu leen di nuyu di leen di jaajëfal yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi ñu seq waxtaan ak euh, Galas Diop Galas Diop nag moom moo jiite mouvement Mandakaw mu nekk mouvement boo xam ne bu ràññeeku la fii ci Touba mouvement bu organisé wu mu nekkoon nag am mouvement boo xam ne dafa demoon doon jàppale président Macky Sall ci benn Bokk Yaakaar waaye dafa bàyyi Benno Bokk Yaakaar. ñëw ci coalition Yewwi ci élection locale yi euh, Fallou euh, Gallas Diop ngeen am victoire yéen waa Yewwi Askan Wi nan nga ko jàngatee. di li xanaa di sant yàlla bu baax di sant population département de Mbacké mais particulièrement population bu Touba ci ndam lu rëy li nga xamante ne ci coalition Yewwi Askan Wi am na ko fii ci de Mbacké di ñaanal suñu candidat bu baax. di sëriñ Fallou moom sëriñ Mbacke soxla la im na sëriñ bi akee na Fallou moom sëriñ Modou Moustapha ndam li jikkoo ak di ñaanal waa coalition Yewwi Askan Wi yëpp parce que gis nañ au niveau national ni ko coalition Yewwi Askan Wi baatare bu baax a baax a baax a baax li bettuñu woon parce que sëñ Fallou mi nga xamante ne si moom lañ doon jàppale dafa def bilan bu am solo ci xeex bu metti bu ko président Macky Sall xeex ci conseil départemental bu Mbacké moo waroon a budget deux milliards trois milliards sëñ Fall ñu yëkkati trois cent millions di ko jox par budget mu ci def fonctionnement bi yëpp di ci fay éducation ci li nga man ci def ay réalisation yi bëri nii ci éducation ci santé ci formation des jeunes ah ci formation des femmes ci transport ñu gis bëri ci démb li jàppale xale yi ci côté éducation jënd plus de quatre jox leen ko ñu mën leen transporter leen yóbbu. Ah. kooku bu laajaatee askan wi dañu koy jox. mais mais Galas yeewi askan wi aussi euh, coalition la boo xam ne yow da nga ñëw dugg ci yeewi askan wi jàppale Serigne fàllu Mbacké euh, ci conseil départemental bu Mbacké nga jóge woon Benno Bokk Yaakaar ndax dangay delluwaat ci Benno Bokk Yaakaar. noo ci li parce que ñun Benno Bokk Yaakaar bi ñu fay jógee avant ñuy ñuy ñëw di ànd ak Serigne Fallou euh, Madakaw dafa. la xewoon ay activité am ci coalition Benno Bokk Yaakaar parce que Djily Madakaw day mouvement boo xam ne mouvement départemental la. lu taxoon ngeen bàyyi lu taxoon ngeen bàyyi Benno Bokk Yaakaar lu tax ngeen bàyyi Benno Bokk ko bàyyi Djily nit ñi dañuy wax à chaque fois Benno Bokk Yaakaar ay réalisation ma ne Benno Bokk Yaakaar boo waroon def ay réalisation Djily cent pour cent li mu fi def mu def soixante pour cent ba pare Benno Bokk Yaakaar li mu ñuy defal. c'est obligatoire pour mu def ko ci département de Mbacké même bu mais dafa am loo xam ne politiquement département de Mbacké da ko ñàkk te président Macky Sall xaj ko Benno Bokk Yaakaar rawatina njabootu politique bi fi nekk parce que ci li benn ba ci jiitu mooy boo génnee ci département yi ci Sénégal yëpp foo ci dem fekk fa ay directeurs généraux foo ci dem fekk fa ay ministres portefeuille léegi Yewwi Askan Wi doole bi mu am Touba ñu gis ne am na doole lool ci département bu Mbacké ci li nit ku nekk da nga koy nangul li mu moom parce que électorat bu département de Mbacké du électorat du bu du bu Ndar du bu Dakar du bu Thiès parce que li ko indi mooy électorat bi kenn du ko moomul Ablaye Wade moo ñëwoon téye ko ak loxoom boo xoolee ci élection yi passé Idrissa Seck dafa ko gagné largement tey jii ñu ñëw coalition Yewwi Askan Wi Serigne Fallou Mbacké mooy candidat coalition bi waaye nag nit ki loo ñàkk ñàkk ànd ak moom politiquement da nga koy jox li ko suñ borom jox Ousmane Sonko kon tey da nit ñi nangu ne Ousmane Sonko kat jëmm la joo xamante ne na ko la mu joxoon yëpp kon département bi tey ni ñu ci am électorat boo ba ci Ablaye Wade tolloon téye ko fi ci ba téye ko Idrissa Seck jaar ci élection yi téye ko foofu la si Ousmane Sonko toll pour les moments. tey ko yow askan wi yow askan wi bu gagné Touba département bi wala Touba wala fu bari ci jàpp nga ne Ousmane Sonko moo tax. ci am. solo trop ndax boo xoolee Ziguinchor la fa am da ngay xam ne Ousmane Sonko ak ay bokkam ñëpp génn nañ dikk votel ko mais jëmmi Ousmane Sonko Sénégal képp ñëw nañ soutenir ko boo dikkee Dakar candidat bi am na ci solo loolu di Barthélémy Dias waaye président Macky ne nit ku nekk te li ngay jëflanteeg jaam ñi la la suñu borom bi delloo président Macky Sall nii mu def Khalifa Sall ko teg ci loxoom loolu c'est impossible kon naa ne lam def Khalifa Sall rek la suñ borom faye loola Barthélémy Dias moom la ko fayewaat Khalifa Sall ndax démb wér na ma ne boo demoon ci laalub Khalifa Sall boo ko fa fekkee lu meroon rek Khalifa Sall am na mbégte loolu démb tey jii boo ñëwee ci département de Mbacké Serigne Fallou Mbacké fal nañ ko ndax bilan waaye Ousmane Sonko participé na ci élection yi à soixante dix pour cent ji kon def naa ne Ousmane Sonko rek nit la ko mat a bàyyi xel te loolu moom président Macky Sall defe mu nekk démb xamu fu mu fanaan waaye na ne Ousmane lii mu gis ci Sénégal voie ba mu nekkoon moom président Macky Sall en deux mille ba Sénégalais jox ko réew mi bu ko raw président Ousmane Sonko mi ngi dëpp mooy Sénégalais danañ ko ko jox en deux mille vingt quatre. jërëjëf kon nag responsabilité yooyu ci loxoom la. jërëjëf Fall ñu lay sant gërëm.